leen ak jàmm mbokki internet yi ñuy safoo di seetaan Buzz SN TV borom def gi Cheikh Bara Ndiaye gannaaw kàddu yamu yëkkati woon teg ko ci avocat bile jamono jile sax mën nañ ni ex avocat du maître El Hadji Diouf nee na rek dafa damoon loolee nag clé du maître El na daal di koy weddi ba mu set ci ab benn vidéo boo xamante ne ni rek ma nga sol yëre entraînement di def ay mouvement nekk ci euh, këram gannaaw ba nga xamante ne ni sax ma wax journaliste bi kookee di Bara nekk foofu foofee ca wàll fajiri la mu wax nekkul dëgg tey day wax lu nekk ci man waaye loolu de baal naa ko ndax moom nekkul man man tamit nekkuma moom waaye li nga xamante ne nii rek wax na ko loolee amul te it war na ñu bëri di ma woo di ma laaj ndax yaa ngi si jàmm ndaxte rek dañoo jàppoon ni dama dam gannaaw ba nga xamante ne nii rek nee na dafa daanu ci duus daal di am app damu damu Maître El Hadji Diouf nag daal dinay weddi loole ba mu set nee na dara amu ci loolee nga xamante ne rek Cheikh Bara Ndiaye daal dina koy wax maître El Hadj Diouf nee na dara amu ci ci ab vidéo boo xamante ne nii rek ma ngay def ay mouvement di wax ni rek ana sama ban tànk moo daal di damm.